Euh, sunu autorité locale yi mair yi ñoom gërëm naa leen yëg nañu ma bu baax au conseil président conseil départemental ñoom it yëg nañu ma bu baax waaye lu des mooy autorité ci kaw ministre yi léeg-léeg daf jox musuma am ministre bu ma woo mu wuy ci tàmbali bi Bonuwa Sambo kooku daan naa wootanteeg moom dina ma woo ma woo ko te kooku su ma ko woowee daf may eh, wuyu waaye ñu des jox nañu ma seen numéro tàmbali ko Moustapha Niass bi ñuy def campagne jox na ma numéro ne ma man moi Moussa Moustapha Niass ancien premier ministre de Ablaye Wade le petit-fils de Baye Niass alors c'est moi qui vous appelle ici à partir de Dakar bon boobu ñu ngi woon campagne seen benn boobu mais boobu ba tey ku mm. ma woo ci ñoom Amadan Soko daan naa ko woo mu wuyoo ñoo ñoom ñëpp ma jox seen numéro de. man ma leen sama numéro. ñoo mm. ma jox seen numéro mais ki ma ci woo tey ñëw ba ci Abdou Abdou Diop bi nekk fii Abou Diop bi nekk Sédhiou moom kartam la ma jox sax mais musuma ko woo mu wuyu mu te ñëw na fi ne meeku yendu fi ak eh, le maire de Bounkiling le maire de Sédhiou li conseil euh, départemental yu Bounkiling ñëw na ak ñoom kii ba ñu ne ma waaw yéen lu tax yéen jiite diine Casamance doo leen soññi nit ñi pour ñu woteel euh, diw wala ñu woteel président ma leen man su ma ko defee gàcce la parce que li waral loolu lan la ma président defal euh, lan la def ba li ma defal ba may woote li mu def de ba may woote loolu mën naa yem ne a ah, nañu liggéey Sénégal nañu di liggéeyal ah, askan bi nañu yëg askan bi nañu taxaw tamit tànk njiit waaye pour ne leen pour wax waaleykum salaam pour wax nit ñi ne woteel leen diw defal leen diw nangam kooku su ma ko defee gàcce la eh, sakku naa fii lu may doxee aw ko tàmbali ko même ci mobilette aw ma ko oto ci boppam aw ma ko loolu nag su ko defee eh, lan laal leen mun dina du ma sañ wax ni di wote wote leen nii mais même moto lañ ma jox ki ma jox loolu dinaa wax nit ñi ne wote leen diw ki def loolu mooy Pape Diop Pape Diop daaw woo na maire bu fii nekk xel général Balantacounda bugg naa am numéro téléphone am kooku jokkoo ko waaye li ma defal yàlla rek a ko ren mii ren loolu tamit bi eh, tabaski bi jég jeg si moo ma jox xaalis ma mën a jëndee xarum tabaski donc dul kooka te man nag musuma ko woteel musuma wax nit woteel leen Pape Diop mais fu mu nekk Ndakaaru yëg na ma eh, dégg na tamit ñoom waa jigéen soor jox nañ leen ay xar nangam kooku kii mooy ma mësoon woo benn bés Dudu Ka woo na ma mooy ci biir bale woo ma eh, ne ma waaw man la Dudu Ka man maa woo ma ne ko waaw Dudu Ka yaa ngi may woo mais yéen li am mooy woo nga ma tey man su ma la woo soxlee suba moo la woo doo jële loolu nekk na kon maanaam a wax ni autorité yi en général autorité yi. du ñu du ñu daal du ñu dimbale daal ñi nga xam ne ñoo nekk si Balantacounda bi yëpp. voilà laa lay wax sax. waaw Balantacounda fii yéeguñu ko. yéeguñu ko yéeguñu ko de. du ñu dimbalee njiitu diine Balantacounda. te man dem naa ba wax ko. ak conseil départemental man maa bind lettre dem jox ko ko ma ne ko am na yeneen ngir yoo xamante ne fii. autorité bi fii dox war na jaar seet si ñooñu moo xam député mooy ñëw moo xam ministre la moo xam président de la république ci boppam tàmbali ko Kaolack ci Badiaby ñëw be Simbandi xalif général bu Balantacounda dem be fale Binako euh, xalif général bi Serif Serif Seex Atap dem Bangeer euh, nemmeekul euh, Serif yi foofu dem Karantaba juróom diwaan yi laa leen jox ma ne leen loolu soo leen ko defee dina baax lool ci sunu diwaan bi mais euh, si man fii dañ koy def dañ koy def bi ma waxee loolu dañ koy def autorité dañ dañuy ñëw donc loolu su ko defee nag euh, lu ñu soxla ak lu ñu nàmma mooy loolu état bi yéeg Balantacounda mu ngeen koy yéeg yéegaat ndax Balantacounda lépp la nga xamante ne mooy sago sag maanaam sakku tiif euh, état bi Balantacounda taxaw na ci su ko wéeti ci dara même ci mbir mbas mi Balantacounda moo ko gën a fonk Balantacounda ba tey ba ëllëg am nañu yaakaar ne bu soobee suñu borom su fekkee ne desul dara lu mooy que moytul feebar bi incha allahu yàlla ñu dimbali ndax moytu nañu ko te nañ ko ci anam bu ne amul fii kuy weddi ne feebar bi amul Balantacounda ba mu daj ak département bi ba mu daj amul ko ko weddi donc loolu su ko defee nag ñun déglu nañu état te fonk nañu état musu musuñu euh, bëgg di xëccoo ak état ba ay manifestation yu bari yooyu ngeen di dégg fu nekk Balantacounda am ko mais état bi ñu ngi koy gërëm fan naa ba nga xamante ne yëg nañu ci wàllu ndox sunu diwaan bi fii yëg nañu ci wàllu ndox rawatina commune bu Simbandi yëg nañu ci wàllu courant courant nag li des lu ñu desee mooy que amuñu réseau réseau de amuñu ko boobu ñu ngi koy jooytul fune Eh, woote nañu eh, si gannaaw ñi nga xamante ne ñoo yor loolu toog ak ñoom yendoo ak ñoom fii eh, tàmbali ko ci directeur général bi nga xamante ne ñoom ñoo yor mbiru Coran wax mbiru réseau mooy orange toog nañu ak ñoom fii yendu nañu ak ñoom fii waxtaan ak ñoom diwaan yëpp woo nañu dëkk dëkkoo dëkk woo nañ fa élément bu ñëw ñu gisoo ak ñoom loolu nag mooy lu ñu war a jooytu ak état bi mu yëg ñu bu baax mu yëg ñu man dinaa dégg saa ñi ñuy jox ay oto ne ñoom ñoom ñu ngi ci affaire paye ñu ngi ci nangam gisuma ci ñooñu kenn voilà li maa ngi leen di gërëm di gërëmaale état di gërëmaale les élus les élus locaux les élus ñoom kay alhamdulilah man ak ñoom eh, yëg naa leen bu baax yëg naa leen bu baax lu ñu dese mooy ñu ngi sàkku ci état bi Kasam eh, Balantacounda ñu am ministre parce que ñàkk am ministre moo waral loolu yëpp boo amee boo amulee ku lay fekkeloo ndab bi ci ndab bi fuñ ko teg ku ci mën a dugal loxam yow kay des nga parce que bu ñuy waxee kan moo lay waxal foofu bu ñuy jël kan moo lay jëlal foofu fu ñuy jiwoo ñun tamit bëgg nañ fa bokk donte ñaar bi ñetti élément ñoo xamante ne lekkeetu jiirookaay bi fi ñuy jiiroo eh, ñu am ku ñu fay jiiroon loolu mooy sunu suma kaddu bu mujj jërëjëf